Euh, président de la république dafa am programme bu mu taxawal mooy programme de résilience économique résilience économique mooy entreprise yi nan lañ leen fexe ba jàppale leen ba ñu mën a euh, gën a mën a def seen seen liggéey seen liggéey gën a ñoŋ lii ñuy def it jàppale entreprise yooyu la bu ko defee ndax ki waroon def waxtu pour indi marchandise am bu fi ndawee ñaari wala ñetti waxtu am na benn perte boo xamante def na donc xàll yu ñu doon xàll mbedd yi ak yoon yi loolu la doon indi liñ naan it euh, prévoir euh, gouverner c'est prévoir li ñuy def c'est prévoir wala prévenir loolu it da cee bokk gis ngeen ni ay dëkkuwaay am na fi te ci ay mbedd yoo à mon amul lumière donc te fii zone logistique là, day fonctionner 24 heures sur 24 employé bi wàcc 5 heures du matin war a ñibbi wala ki dëkk ci kër tu war fi egg si 20 heures kooku tamit mën na am ay risques ci wàllu ci ci wàllu euh, euh, sécurité euh, société yi doon dem li ñu doon wax sànq ci camion yi dem ak dikk bi dina jafe waaye li nga doon wax sànq ci palette yi jéggi na dayo ci ginnaaw essence moo fa nekk te palette yooyu mégo cigarette dong taal na ko ndax bant la donc bu bu ta bu bu tàkkoon it wala bi laa li fi xew yàlla nañ ci yàlla musal loolu nag lañ doon fexe it mu mu kii ngir jàppale entreprise yi te it li li li xaw a yees ci ci opération bi ñuy def ndax saa suñ ko daan def dañ ko daan def ci mbedd mu fës wala ñu def ko ci bu la donc dañ doon wane ni bëri na ci journalistes yi ñoo xamante ni tey guleet ñu fi soog a teg tànk dañ doon wane tamit beneen dimension ci liñ doon def loo xamante ni jàppale entreprise yi lay doon ci li ñu prévoir incha allah lu gàtt ba gàtt dina doon ñetti fan lu lu lu lu mu bon bon nañ ay moyens parce que foog naa ni tey la nañ doole ji euh, am nañ ci lu mat euh, euh, ñaar fukki plateau plateau bu nek mën na jël ñaar ba ñetti auto té ñu ngi leen di yóbbu fi ci fourrière bi té tay japp nañ plateau bu nek wana def ñaari ñaari ñaari euh, wala ñetti aller retour donc bo xol ab lim bu takku la bu ko défé suba baraquement yeeg euh, yenen ñu ñaqat yi fa nekkoon ñu dindiko 3 troisième bi jour bi ñu nettoyer waye bu lolu wesso té it maa ngi anticiper ci question bu ñuy wax toujours moy question suivi suivi bi euh balé ci sa weewu tànk

mën nañ fa tabaxaat yeneen yoo xamante ni ala kulli àll dañ koy soxla ndax nit ñi fa nekk faw ñu jëfandikoo faw ñu jënd faw ñu jaay faw ñu faw ñu faw ñu lekk waaye ci ci ban matériel ak ci anam lañ koy kiiwee tool beneen organisation la ministère mi ngi ciy def kem lim ci mën te dinañ ci gën a waxtaan ak maire bi te incha allah am nañ ci yaakaar.